kooru gay moodum géej o xaaj ibrahim gay koor gaa ngi xëccoo di jëm ci jeex DG moo ngi def lu man ngir mu jeex bu gaañu sure ci koor gi moom mi taxaw fi taxaw rekk du lim bëgg naam waaye seytaane moo ko toppee mbooro moo ngi def cim kàttanam ngir fukki fan yi ñu ne mu bokk ci ñu ñuy goreel ëllëg tax na mu daldi ba caaxaanam yépp uti ay ñaan naam waaye yëf yi faju ko tus DG conseil la soxla Alhaji Amar ko musna ci la ko jegaleel bopam dis ko ay jafe jafém lepp ni ko sétane sonale le bëgg mu dand ko Seydina Omar Cissé DG dégg na la waye koor gi fa nga top sa nafsu rek fa ma yaakar né li la sun borom dencal ci koor gi fa la humpu wala sax bakkar bi nga nara a bo boo dañ la ko waxut mu nga Aj Ibrahim góorgóorlul ku la wax lu dul fa lay nax ba sa caañ-caañ yi o oh, DG dégg tina dëgg tax lolu toyal xolam ba tuta wax gay kii Mouroum Géej conseil am wan na ko gannaaw chargé nañu ko kooruk teyam jile bakkanam la ci teg ci lay jaabante rek tombek aji di rosi DG xeñtu ko Hadj Ibrahim jubali ko yow danga may fonto wala lan ñaata yoon laa la wax sëy boo koy def tijjil bunt bi nit ñi dañ woor waa kaay kaay xam nga lan la jële say bagage tànk koor gi jeexut bu fi ñëwaat dégg nga ah DG xaalootina lañ jotoon a ndugg lépp yekkal na ko xari caaxaan faaxe xëccaat kurusam di astaxfirullah rek seytaane koy dandu naka muy dugg dugg buróom rek gis benn bitéelu Evian bu ñu teg noa bi yaay mooy ko ko yoroon ca la aalooti dal koy kajji ku teg li laataa muy waxaat noa dikk ah <laughs> directeur man teglu fii nga ne ma ne man teglu fii bitéel doon raxas ko ak man o oh, DG kenn xamul looy wax ñaata yoon laa la wax lépp luy dagg koor bu mu tax wàllu ci rajo bi te eh, jëla bitéel bi lu jëm ci wàllu lekk ak naan bu ko ma ko tegg fii c'est clair noa <laughs> leeru na DG tey jilee caaxaanu ci waaye su aaloo rek yaramam yaramam xaw sutante ni biir ba attanut coono mu dem biroom toog wéeru toog tuuti rek jot appel génnaat biro ba jubal kër xalif général naka mu yegg rek gaañu joxoñ ko bokk néeg bi directeur gaawal gaawal gaawal kii te agent la libaas gaawee ñu daa xër ñeenti ganaar yi desoon ci plateau sëriñ bi ñett yi leen di tëndi nooy gi daa aju oote nañ sàppoor waaye kenn jëlut <laughs> o DG au lieu mu concentré wu ci agent bi li gaañu di wax yépp déggu ko xelam wa nga des bokk néeg bi tàpp ko directeur directeur ah dégg la ma wax DG ah ah ah, ah. libaas waxatul di o oh, oh, DG doucement doucement li suñ métier la jarul appel dangeen tiit rek xam nga lan la génn leen fii ngeen tëj bunt bi bàyyi maa ak moom mu léemu ko ok DG amul soxla ci libaas la am soxla jëplante nag moom bu ubbiwaat beneen bool ba fekkaat fa yeneen i ganaar je tegaat na ci ñaar tëdd nag comme nu libaas tëddee gaañu toog lu yàgg dégguñu dara ñu dajj bunt bi fekk xaaj Ibrahim ak libaas ku ne tàllee ko ñareet